ñaari oto yi ñoo doon njëkkante bu ndaw bi nekk si kanam doon bi bu ndaw bi am ñu doon wàcc ñu saaraane dal si kaw oto bi amoon na benn waa sagam ñu nekkoon bi doon xaar ay oto bi doon ñëw si moom si le sang la dee moom ko ko moom beneen moom ñoo ànd wala doon kii comme niñ koy wax da doon taxaw waaye ak ñeneen ñi nekkoon fee kooku moom tam da doon crise may yuuxu na nit ñi nañ ko may loxo ñu may ko mu jóg mu yëkkat mu jóg toog mu doon kii mu jóg munul mu mujj a wax xale góor yi leen ko ngeen may ko loxo mu jóg dimbali leen ko ngeen yàlla mu jóg après si la benn grand ñëw traversé après kii ko yëkkati ko nii tuuti mu def mais teewul kii bi métti na mu ngi crise crise kii la ñu woo sàppal ba sonn si fajar bi six heures matin di leen woo boobu noonu nañu ñu leen di woo di leen woo di leen woo ba sonn bi ñu ñëwee benn sàppal moo ñëw benn oto moo ñëw xam naa mu foog ne bi accident bu ndaw la te soog bu bari ñett sapeur yi ay yan heure lañ fi ñëw. bi ñuy ñëw boo fekk na ñun ñaa ngi xaw a bari. sept heures yooyu. six heures ba sept heures ñu nekk fii du yóbbu. accident bi métti na trop. métti na ak ñu nekk si minicar bi si kanam tamit boobu moom oto bi da koo tànc dafa dugg si biir. si biir ak ku jigéen ki tamit man dayoom bi mënuma la ko wax sax moom moo gën a metti la moom accident moom moom moom ba ko oto bi laal dafa doon génn pour xool ban oto moo ko laal ñu fekk ko man mosuma gis koy doo gis la première fois dama. ñaata nit ñoo si ñàkk seen bakkan. waa sagam bi ak keneen ku ñu muur fee amaan na keneen fee ak ki ñu muur fii dina ëpp daal set. est-ce que ñuy jot a yóbbu est-ce que dinañ dund est-ce que dinañ dund parce que dafa métti